parce que vraiment ku wax dëgg rek te tax. Mhm. xam ne ni moom moo di nga dégg musique. di nga dégg ambiance. Mhm. di nga dégg ay mélodie mhm. di nga dégg ay wayu la yee. xam nga affaire bi léegi Sénégalais yi danoo commencé parce que Sénégalais jamono yee passé. melomaan yi danoo tëddoon di nelaw fu mu nag melomaan yi danoo yeewu te ña nga xam ne tey ñoo doon. consommé tey sunu papa Youssou Ndour du consommé sunu papa Thione boo xoolee léegi sax boo xoolee léegi sa ba ci tendance bi léegi TikTok morceau ancien morceau yi la nit ñi gën di TikTok. c' est parce que nit ñi dañoo réeroon. léegi nag dañoo commencé comprendre ne affaire bi. Mhm. xam nga mhm. fii la. Mhm. barke Serigne Touba ku fi ñëw benn yoon. non dootoo ko bàyyi. mais Kora Kora international la ku ko gis xam ko si ki nga xamante ni mooy suñu yaay Kumba Gawlo ku ko gis gis ko si Pape Diouf ak ñeneen ak ñeneen mais Kora international la mais boo ne moom a jëng moo fi nekk loolu ah. wa non non non néew moo fi nekk. dama ne. dafay baax léeg-léeg melomaan yi ñun ñu leen di jox loo xam ne ni dinañ ko mën a cons tey suma yaay Kumba Gawlo à passage maa ngi koy nuyu kooku musique Sénégal kenn du ko wax te ko tudd suma mag Pape Diouf kooku li mu def ci musique Sénégal ah ak fi mu toll nii kenn waxatu ko yaa may dégg macha allah muy artistes yi nekk Sénégal ñun ñun Sénégal ñun artistes yi sunu biir ñun waratu noo doon concurrent xam nga ñun ñan lañ war a tey ñi nga xam ne ni tey ñoo nekk tey ci réew ke ñu mel ne ay Amérique ñu nekk ay Nigéria ñu fexe tey ba waa Nigéria tey seen musique tey nu muy jaayee ñun suñu musique di ko jaayee mais concurrence bu warta doon fii xam nga te sax peut-être fans yi la rek mais gars yi xamante nañ seen biir yàlla dogal nag ñoo ñu nga tudd ñëpp mooy liggéey ak mm-hmm. ñu jox ma confiance mm-hmm. jox ma cër mm-hmm. ku ci mel ne suma yaay Kumba Gawlo Seck kooku suma yaay la moo ma waaw ah, moomoo yaayam ak sama papa bokku ndey ak baay Pape Diouf daf ma defar lu loo xam ne nii nag waaw mën naa wax ni lu ma kenn defarul mhm. dafa jël sama rak mhm. boo xam ne maa moom bokkul ndey ak baay mhm. xam nga mu yóbbu ko soiréem sama rak yéeg way Pape Diouf xëy ne booy bi dafa mën a way yëkkati ay millions yu bari jox ma ko dama dama bëgg nga defal ko single barke Seydina Muhammad ku mel noonu tey bu la soxlaa mm-hmm. woo la nga disponible da ngay dem liggéey ak moom mu doon grand bu baax bëggul sax ku ko wax barke Serigne Touba mm-hmm. c'est la famille ñun ñëpp famille lan mm-hmm. muy waali yi waali ku ne xam na ni ñu ñoog moom duñu ñaar kenn lan barke Seydina Muhammad kon affaire bi na rafet rek ay siidi suma ma limee damay juum tarba affaire rafet man moom yàlla dafa dogal man artiste yëpp samay xarit la moo tax wax lu ñaaw waruma def lu ñaaw waruma parce que mhm. ku ma ci dem seenam mhm. di nga ma sagal mhm. siggil ma teral ma kon dara mënta tax ma ciy xalab kenn wala nangam mais mercredi yi daal ni daal lay demee waaw comme ni dimanche yi demee waali noonu daal lay demee sama dernière question balaa ngaa dem na waa c'est pas banque bi. mooy réew mi. réew mi dafa. <laughs> yow waa site internet yu bari ku ma ci dajal dana man damaa sàcc ab pas banque te man nag ma ne man sàccu ma damaa ñëw fekk sama doomu di jaay jël yëfam dem te yaay sama doomu di jaay loolu rek la pour ñu xamul ñu bokk bari ñu nag bokk mel na maam. nga bëgg nag askan wi bokk nag ci askan bu riche di wax ni Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na nu yàlla defal jàmm ah? waaw foofu laa laa mën a wax. balaa ngaa tëj taxawal bi réew mi. bi ak Baye Mass yow gis nañ nga si ki nga xamante ni moo di Baye Mass. Baye Mass Baye Mass booy bi li mu répété. Baye na noonu laa lakk dëkk bi de. mais xam nga la mooy bi koo grand bi loolu neexul Vizi. magay koy tëggal man maay tëggal Baye Mass. léegi nag problème bi foofu la. Baye ah Vizi. Hmm. sama xarit la waaye. Hmm, Baye maa sañ de booy bi li mu répété. nee na lan aw ma benn temps. day daw rek. waaw day daw rek. Eh? ba pare Baye Mass nee na. Hmm. guddi tey guddi tey. noonam du nelaw même bu nelawee sax bu nelawee sax nanu ko rek mu jóg. waaw kon le 5 le 5 événement dëkk bi de loolu dama mënuma ci wax. Vai, vai, vai, vai, vai, vai.